الأكملان الأتمان على أحب خلقه إليه مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعي هديه ومسترشدي رشدي إلى يوم الدين ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بالهدى واليقين إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا أحمد التياني وعن سائر أصحابه ومقدمه رضا يعم الجميع وبعد السلام عليكم ورحمة الله gannaaw bu ñu santee borom bi subhanahu wa taala bi nga xam ne ahlu sanaa'i walhamdi walmajdi ñaan ko mu wuutuñu ci julil ñu ci sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem ay saxaabaam ak ñu topp njubam ba bés penc ñaanal ngërëm suñu wasila ci yàlla Mawlana Seydi Cheikh Ahmed Tidiane yi ak mboolem ay muqaddamam ak xulafa om euh, ñu ngi dellu sewaat ci téere bu màgg bii nga xam ne ci lañu nekkoon muy jawaahirul maani wa bulughul amaani min faydi abil abbaas Tidiane yi téere bu yàlla barkeel suñu sëriñ Seydi Ali Harazim Barrad al Fasi def ko ci suñu sëriñ ñun ñëpp muy Seydi Ahmed Tiyaani radiyallahu anhu ñu toll woon nag ci dars yi nga xam ne sëriñ bi ci lay defee ay tafsiraatul qur'aan wala ta'wilaatul qur'aan euh, gis nañu ayat yu yéeme yi nga xam ne sëriñ bi firi na ko ci façon boo xam ne jiituwul woon ñu xam ko biñ ci mujj firi moo di wax ji yàlla wax ci suratu rahman marajal baxrayn yaltaqiyaan baynahuma barzaxun laa yabqiyaan ñu foogoon ne ñaari ndox yu daje rek la sëriñ bi ne baxrayn bi mooy baxrul uluhiyati ak baxrul xaliqati leeral ci lu bari fa tabarakallah tey nag ñu ñëw ci aaya bi saydi Muhammad euh, saydi Ali Harazim Barrad al Fasi di mu wax ne wa saaltuhu radiallahu anhu an daairatihi sallallahu alayhi wa sallam fa ajaab bi qawlihi hiya daairatu saadati allati waqaa alayha qawluhu taala ala inna awliyaa allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun qaala muhammadu albuusiri radiallahu anhu walan tara min waliyin gayri muntasirin bihi wala min aduwin gayra munqasimi kullu man lam yantasir binnabiyi sallallahu alayhi wa sallam la xaza lahu fi wilayati llah wa huwa maana qawli cheikh walan tara min waliyin wa qawluhu radiyallahu anhu axalla ummatahu fi xirzi millatihi kallaysi xalla maa al ashbaari fi ajami البيت أراد أنه صلى الله عليه وسلم أدخل أمته المخصوصة بالسعادة أدخلها في حرز ملته كالشيء المحبوب العظيم الذي يكنز في غاية الحرز فإن الذهب والياقوت في علوه لا يوضع إلا من وراء الأقفال حزرا له وتحصينا كذلك هو صلى الله عليه وسلم أحل أمته المخصوصة بحرز ملته فانطبقت عليهم السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة وهذا من حيث التخصيص الإلهي لأمته التي هي قسم السعادة جعلنا الله منهم بمحض فضله وجوده intaha ma amlaahu alayna min xawba yi wal xaway ku ne xam na ne dars bi ñu paase ñu ngi ciy jàngale ne yonent bi sallallahu alayhi moom mooy ki nga xam ne mooy borom barzaxiyatul kubra maanaam xadaratu zaat al aliya li tax mënta lakk mbindeef yi yonent bi mooy intermédiaire bi nga xam ne bépp leer bu jógee ci jëmmi jàll ji subhanahu wa taala yonent bi moo koy amortir ba mbindeef man koo jariñoo mu soog ko jox mbindeef yi ñu wax ne kon loolu moo tax nit lu mu gën a julli ci yonent bi day gën a jege yonent bi te bu gënee jege yonent bi mooy bi jege na yàlla loolu mooy dars bi passé mel ni Seydi Ali Harazim dafa laajaale Cheikh Tijaan nekk nekk nekk ko kon lan mooy daairatuhu sallallahu alayhi wa sallam lan mooy cercle restreint bi nga xam ne yonent bi moo ko moom daayira ñun buñ ko déggee rek mooy ay nit ñu daje ne dañuy woy fekk daayira kalima arabiya la luxa moo di cercle maanaam ñoo xam ne dañu barab boo xam ne dañoo wër dañ koo wërale dara euh, mu mel ni yonent bi kon dafa am ci intimité benn cercle boo xam ne ku fa dugg rek ganam nga maanaam mucc nga daayira boobu nag sallallahu alayhi wa am moom la Seydi Ahmed Tiyaani laaj Cheikh na Ahmed Tiyaani mu ne ko daayira boobu moo di daairatu saadati mooy mooy këru texe gi nga xam ne ku fa dugg rek texe nga nga xam ne fa la yàlla dugal ay jaamam yàlla baaxal ba duñ yàqoti moom la Cheikh al Xalifa radiallahu anhu naan yàlla yàlla dugal ñu ci diggante inna ja ak yaayu mutakallim ja yàlla bi mu nammee amal nit bind mam aadama bindul mam aadama rek pour mu nekk xalifaam doon yonent après wàcc ci min biir euh, àdduna euh, ñu def lu leen neex jaamu fi yàlla après dee dem àjjana yàlla day dafa jàpp loolu dafa yomb trop fekk na bi muy bind aadama mu bindoon opposant jëkk muy iblis pour àdduna bu ñu fi ñëwee mu doon combat euh, pour ndax victoire ki koy am mooy ki def combat waaye toog rek ne gañe naa te defoo dara xam nga loolu wax dëgg yàlla amul benn mérite tey ku mënoon a toog sa kër rek njekki-njekki indil la coupe ne la yaa ko gañe da ngay yëg ne defoo dara yàlla bind iblis euh, pour mu opposer aadama ñu wàccandoo ci suuf depuis aadama ba àddunay tukki iblis du yendal du fanaanal lu yàqal nit rek lay wër yàlla nag bi mu xamee loolu moom ci kàttanam ak mbaaxam mu bind nag benn cercle boo xam ne bu doon tey ab néeg la wala benn salle bu yaatu boo xam ne daal ku mu farawale ba dugg fa moom iblis amul accès foofu parce que bunte bi bu doon tey dañuy wax courant la bu ko laalee rek da da koy da koy mas ñooñu ñooy nitu yàlla yi ñooñu yàlla moo leen denc fu yàq yeggul sëñ Babacar Si nag daan wax ne foofu yàq yeggul mooy diggante inna ja ak yaay mutakallim ja yàlla dafa ne inna ibaadi sama jaam yi jooju nag ak dii jooju muy yaa jooju loolu moo fa dox mooy di ibaadi yi boobu ku fa yàlla dugal laa wax dara dara mënatulaa yàq yàlla ñu fa yàlla yóbbu loolu nag mooy cercle bi nga xam ne moom la yàlla jagleel yonent bi <clears throat> ndax ñi iblis mënta yàq yonent bee ci jëkk moom ak yonent yépp ak axtaab yi ak aarifuuna akabir ñooñu iblis mënul ci ñoom dara bi ñu juddoo ba bi ñuy dee iblis mënu leen yàqal dina leen jéemal nag waaye du tax mu mën leen a yàqal daayira boobu nag nga xam ne yàq yeggu ko moo tudda daayiratu saada mooy cercle de gagnants ñi nga xam ne dañoo am bonheur ci àdduna ak àllaaxira fenn tiyaan yi nee na kooku mooy daayira yonent bi yàlla moo wax ci daayira boobu ne alaa ma ne inna awliyaa allah yi gaa yi yàlla dëgg dëgg laa xawfun alayhim du ñu tiit fii ci àdduna wala hum yaxzanuun duñ jaxle ëllëg ci àllaaxira kon li nga ciy déggee mooy képp ku tiit nag wala nga jaxle bokkoo ci gaay yàlla ndax yonent yàlla Muusa bi ko yàlla yónnee ci Firawna euh, daf nekk alqi asaaka sànnil sa yat wi ba mu ko sànnee fa iza hiya su'baanun mubiin mu gis ko mu doon benn euh, benn jaan ju mag a mag a mag a mag wala ren dafa daw parce que loolu yëfi nit la yat ko ko sànni kay gis muy jaan bi nga daw mu ne ko yaa Muusa aqbil yàlla nekk jublul wala taxaf bul ragal ndax inni laa yaxaafu la dayyal mursalun loolu laa ci soxla woon yàlla nee na samay gaay duñu ragal moo doon nit yàlla bu àdduna doon tukki itam muy nelaw boo ko yeewee nekk àddunaa ngi tukki day continuer ay nelaw ndax moom àdduna bu tukkeeg bu ñàkk tukki gisu ci lu koy déranger ba tax muy war a dagg ay nelaw nit yàlla yi moo tax ñu leen di jiñ ne dañuy dal xel dal xel nag li koy def mooy zikrullah ala bi zikrillahi tatma innul qulub moo tax dama ragal ne kuñ ci joxoon benn convocation nekk suba soxla nañ la tribunal nangam ndangam day ree ba daanu ci suuf ñu naan waa kii dal na xel de xanaa yëgul liñ koy waajal fekk na dafa am lu nekk ci seen biir loge fa te muy yàlla subhanahu wa yàlla nag fu mu xos loge euh, keneen du fa mën a defati leneen lu koy yëngal moo tax bu sëriñ moo tax yàlla ne alaa inna awliyaa allahi laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun Seydi Ahmad Tiyaan nee na li dëggal loolu mooy xoola wax ji Busiri wax ci burdatul madih ne walan tara min waliyin gayri muntasirin bihi bi doo gis mukk ku ko def copain def ko waay lu dul ay victoire rek ngay am waaye koo gis itam mu def ko face ne day xeex ak moom ne day xare ak moom ay gàcce rek ngay am mooy képp ku ko def waaye dalay dugal ci cercle restreint boobu moo tax mu ne kullu man lam yantasir bi nabi la xadda lahu fi wilayati fi wilayatillahi seena tiyaan nee képp ku àndul ak yonent bi ci diineem ji dimbali ko ci diineem ji ak koosam bi amoo cër ci yàlla amoo cër ci cercle boobu moo tax ku toppal ci programme yonent bi da ngay gis dafay sonn fu mu toog naan jamono ji dafa metti fekk moom rek ko waaye kenn yëgu nee na loolu mooy firi wax ji busri yi wax itam ne axalla ummatahu fi xirzi millatihi ka laysi xalla al ashbaali fi ajami moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi da ko nirale ak benn gaynde gaynde gu nekk ci digg àll fàkkal ay doomam bi mu leen fàkkalee ba pare wërale ko ak ay ay ñax ak ay grillage moom gaynde gi xam nga gaynde googu nag gaynde rek ni mu rakloo jële ci ay doomam yu ndaw euh, fàkkal leen fi benn barab defar ko ba mu nooy wërale ko ay grillage xam nga ku bëgg a jàmm di nga bàyyi gaynde googu loolu mu wër boo ñàkkee nag looy def yow romb de ñëw ci àll boobu mu beru ñàkkat looy def ñag gi ñagam boobu ñagam boobu mu ñage ay doomam xam nga bootul doo ñibbi yow du dëgg ndax gaynde bu jigéen moo gën a soxor gaynde bu góor noonu nag gaynde bu jigéen di amee ay doomam defal leen ab ñag ba kenn du fa mën a dugg yow nga bañ sa bopp ba dugg fa bëgg a génnaat doo génnaat nag doo génnaat mukk dalay reere yonent bi moom la yi melal ni ni mu def aw xeetam dafa mel ni dafa dem ci benn àll fàkkal leen def fa benn ñag bu dëgër jël nag ñi mu bëgg ñu mucc ci xeetam dugal leen fa ba seetaane du leen mënal dara safara itam duñ fa dugg kon yonent bi kenn mënu koo fay moom xam na ne ku ko gëm texe waaye dafa ne même bu ma bu ma nit gëmee dama bàyyi ko ci mbooy mi iblis mën na koo récupérer waat yàqal ko looloo tax mu utaat beneen cercle comme ni ko Cheikh na Ahmed Tidiane firee dugal fa nag ay nitam nga xam ne kenn du mën a dugg foofu pour yàqal leen ñag bi nag nan la tudd mooy ñagub texe ñag bi nan la tudd mooy ñagu bëgg yàlla ñag bi nan la tudd mooy wilaayatullah mooy def yàlla xarit ànd ak moom loolu moom la yonent bi sallallahu alayhi def ni nga xamee ne nee na Seexna Tijaan ni nga xamee ne ku amoon tey tey sa jamaa ak sa wurus defe naa doo ko tasaare ci kër gi ba bon bi sax domestique bi bu ñëwee di bale naan ku moom lii ku moom lii defe naa bët du ko gis de dangay dem denc ko fu ñoŋ wala nga yóbbu ko ci banque boo xam ne sécurité ba jéggi na dayo nga xam ne bala nga faa yegg ay caabi yu baree baree bari ngay ubbi pour dugg fa noonu nga fonkee nag sa jamaa ak sa wurus noonu la yeneen bi fonkee aw xeetam ak nitu yàlla yi ko yàlla booleel mu tëj leen foo xam ne ni seytaane lu mu sop sop sop munu faa àgg pour yàqal leen looloo tax kon moom yonent bi sallallahu alayhi maanaam xeetam mën a ëpp ci ñii dugg àjjana mën a ëpp ci ñii texe ndax noo seulement jubal na leen mais da leen orienté loolu da nga koy xool rek ci sa jëfi bu suba bi xam nga nit xëyoo rek fuddu wàcci sa lal fuddu ne rek ashhadu laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah jullit laa toog déedéet yonent bi daf la indil programme bu la tënk ba nga xam ne loolu nga wax da koy jël mooy da ngay dem sangu ji jàpp ñëw taxaw julli ñaar rakk tudde ko fajar soo paree tudd julli suba def say werd suba gi après dem liggéey boo demee ba wàcce ne damay añ mu ne bala ngaa añ kat na nga jàpp nga nga julliwaat nga julli ba pare gontu boo wàccee tàkkusaan ñu ne la jullit def say werd bu timis jotee nga commencé sonn ne xaaral ma waajal tëdd mu ne julli timis geewe bi nga naan xaaral ma reer tëdd mu ne julli geewe boo jullee geewe mu ne bala ngaa tëdd julli safaak wiitar xam nga yow li nga wax ci suba gi ne ashhadu an laa ilaha illallah fexe na bañ jox la programme boo ko dundee waaw lii kay ku ci dëkk te wér na ne jullit boo gis ak kudul jullit moom di nga xëy dee suba gi mbaa yor yor nga dee mbaa tisbaar ngay dee mbaa tàkkusaan mbaa timis mbaa geewe loolu mënul ñag nit koo gis muy julli rek am na benn julli bu mu nar a julli ba ca topp du ko fi fekk kenn xamul ban la kenn xamul kañ la moo tax yonent bi tënk la ci programme boobu rek nga xam ne bu la dee di bett dina fekkee julli nga pare ba nga juddoo ba tey yaa ngi julli suba ba nga xàmmee ba tey yaa ngi julli suba maa ngi lay yëgal ne am na suba booy julli geewem du fi fekk mais xamoo ban bés yaa ngi julli tisbaar rek am na tisbaar gooy julli ji tisbaaru subaam du la fi fekk yaa ngi julli tàkkusaan chaque jour am na tàkkusaan goo xam ne timisam du la fi fekk am yaa ngi julli timis boobu ba tey am na timis goo xam ne gu du la fekk léeg-léeg nga ne sax euh, tëj sa bunte ne kon gaa yi bu suba jàmm am na bés boo koy waxee doo yeewu suba comme yooyu nag xamuñu benn bés la te yàqu daf fee xaj moo tax yonent bi jox la programme ne daal wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyakal yaqiin xam nga kooku système la mooy doo fi yàqoo ndax bés bu yëpp julli juróom war na la te julli juróom yooyu mënoo fexe fexe fexe ba jeexal julli yëpp ba àddunay tukki faw nga dee balaa boobu bu ko defee bala ngaa dee fexeel julli ko jot rek julli ko meneen bu la fekkaat nga julli ko noonu la yonent bi sécuriser njabootam beneen bi mu leen sécuriser mooy wàcc fi alquran ku ne xam na ne xeet yu jëkk yëpp yàlla da leen joxoon téere ñuy def ay man-man ci téere di def ay man-man ba soppi waxu yàlla xool li leen arrangé ñu jëfe ko li leen dérangé ñu bàyyi ko yuminuuna bi ba'din wa yakfuruuna bi ba'din yàlla ni mu ko wax ci suuratu tabarakallahu baqara ñooñu xam nga nag ki soppi liñ la digaloon ba dee war amatoo sécurité yàlla nag ci mbaaxam participer ci ne yow yonent bi joxal sa gaa yi sa téere bi inna nahnu nazzalna zikr wa inna lahu la woon téere bi kenn mënu koo soppi moo tax kaamil bi ni ko yàlla wàccee woon euh, benn aaya ba tey sànku ci benn aaya réeru ci ba tey loolu mooy eh, eh, xirs bi nga xam ne yàlla garanté na ko yeneen ci yàlla muhammad ak njabootam moo tax axalla ummatahu fi xirsi millati kallaysi xalla ma al ashbaari fi ajami loolu la ñu saydi ahmad tiyaani jàngal min daairati saadati min daairati wilayatihi sallallahu alayhi wa sallam man ma yokk ci ne wilayatu yonent bi nag loo ko gën a bëgg loo gën a bari looy julli ci moom gën a am wilaayatu nabi sallallahu alayhi wasallam ndax wilaayatullah la ñuy wax wilaayatullah nag dafa yóbbu wilaayatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye yonent bi nee na akrabukum minni salaatan ki may gën a jege yawmal qiyaamati du ki sant ay dara du ki sant nangam ki may gën a jege yawmal qiyaamati mooy ki ëpp ci man li muy julli ci man nga gis ne kon boo bëggee gën a am intimité ci yonent bi gën koo jege rawatina ci cercle restreint boobu nu nga gën a bari looy julli ci moom moo tax Cheikh Ahmad Tijaani ne jaala allahu minhum bi maxdi fadli wa karimi amin yal na yàlla boole ci nitu yonent boobu ci mbaaxu yàlla ak daraangam amin mu ne wa suila radiallahu anhu an baadi al ayati alwaridati fi xaqi al anbiya alayhim alsalatu wassalam qala saail baada an waqaftu ala kalaami baadi alulama wa ma qaalu fiha wa ma nasabuuhu li safwati illahi min xalqihi mima la yaliqu bi mansabi alrisalati walnubuwati walmalakiyati minha qawluhu taala inna fataxna laka fatxan mubinan liyaxfira laka allahu ma taqaddama min dambika ma taaxar wa qawluhu taala wa taxsha annaasa wallahu axaqu an taxshaahu wa gayruhuma mimma sayati dikruhu insha allahu baad fa ajaaba radiyallahu anhu matta'naa bi tuuli baqaa'ihi wa saqaanaa min bahri irfaanihi wa adaama alaynaa hubbahu min al-aani ila istiqraari ila al-istiqraari ma'ahu fi a'laa 'illiyyiina aamiin qaala radiyallahu anhu i'lam anna az-zunuuba fi haqqi al-anbiyaa'i allatii hiya iqtihaamu al-manhiyyi 'anhu shar'an mustahiilatun fi haqqihim laa tutasawwaru minhum li thubuti al-ismati lahum mimma daqa aw jalla minha walladi waqaat alayhi almaghfiratu minhu fi xaqihim alayhim alsalatu wassalaamu hiya allati tasduru min alanbiya bilisaani alibahati alsharciya lakin yatanaawaluha talabu altarki min wajhi alijmali la tasrixi wa talabu altarki haahuna laysa almuharrama sharcan wa innama yutlabu tarku dalika al amr wa in kaana fi nafsihi mubaaxan tanzihan li culuwi maqaamihim an altadannusi bi malaabasati dalika almubaax alladi yatanawaluhu wajhu talabi tark min wajhin axar fa inna almubaaxaat fi xaqi alanbiya munqasimatun qismayn qismun yatamaxadu fihi xukmu alibaaxati min kulli wajhin laa yucaariduhu talabu tarki bi wajhin min alwujuh فهذا لا لا عتاب عليه وقسم من المباح يتناوله حكم الإباحة من وجه ويتناوله تلف الترك من وجه أو وجوه فهذا وإن تقنطوا له وعلموه وإن تفنطوا له وعلموه تركوه ولم يقتحموه وإن غفلوا عن وجه طلب الترك فيه واقتحموه لأجل ما فيه من الإباحة وقع العتاب لهم wa hada huwa danbu lmaahuud fi xaqihim waltaclam anna hada danb laysa min qisami almuxarami alayhim sharcan wala min qisami ma samicu talaba tarki fi aynihi bal huwa daaxilun fi jumlati talabi tarki falaysa huwa bi danbin sharcan wa innama yutlaqu alayhi ismu danbi majaazan wa in kaana mubaaxan li gayrihi min al caamati wa tuliba minhum tarkuhu li culuwi maqaamihim fa fa huwa kama qiila xasanaatu labraari sayiaatu lmuqarabin fa hada zanbu huwa fi nafsihi mubaaxun sharcan walakin toyba minhum tarkuhu li ajli tanzihi lmaqaami li culuwi jalalihim Mawlana Seydi Ali Harazim Barrad al-Fasi al-Maghribi dafa wax ne ay borom xam-xam wala boog borom xam-xam bu mag dafa ñëw ci Cheikh na Ahmed Tidiane kon laaj bii moom laaju ko ko benn borom xam-xam bu mag ci ulama u Faas dafa ñëwoon ci Seydi Ahmed Tidiane yi ne ko daal dama fi amoon ay question yu ma bëggoon a laaj question yi nag yu xaw a sensible la yu am xasaasiya mooy yoo xam ne boo jàmbaarul torop doo ko mën laaj laaj yooyu nag li tax ma àttan la ko laaj dama gis ci ay téere ñoom ñu firee ka noo xam ne dëgg-dëgg dina réeral boroom xel ñoom téere yooyu te lii day dëggal li Seydi El Hadj Malick daan wax ne kilifaay jàngale waaye téere du jàngale euh, téere yi daf ci am ñoo xam ne booy liir maanaam jaar-jaaru sang yu baax yi dinañ ko waxe noo xam ne yow da jaxle sax lan moo tax laaj bi xaw a sensible parce dafay wax ci yonent yi day wax ci yonent yi te ku ne xam ne ne yonent yi lu yàlla bind ñoo ci gën yonent yooyu gën ki gën ci ñoom nag mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa euh, téere yi nag léeg-léeg dañuy firi yenn aaya jëme ko ci yonent bi ak yeneen yonent yi ci façon boo xam ne dëgg-dëgg même ku jàngul sax xam nga ne li jaaduwul ñu koy wax ci maqaamu risala wala nubuwa jaaduwul sax ñu koy wax ci malakiya muy président wala kilifa euh, ma ne ma mu jaaxaloon ma nag man mii laaj ma bëggoon ñëw ci seex na Ahmed Tiyaani laaj ko ko ay aaya nag yu bari la ci alquran wax na dëgg ku min téere yi di nga ci gis yoo xam ne nii comme baatu wa zanna daawuda annama fatannaahu fastaghfara rabbahu wa xarra raakian wa anab boo demee ci surux yi firee nañu xew-xew boobu noo xam ne wax dëgg yàlla as gor sax war na koo ëppale boppam tey mooy yont yàlla daawuda dafa am quatre vingt soxna gis jabaru jàmbur bëgg ko fexe ba reylu kooku xam nga yooyu rafetul dara yooyu nit kese kese kese jombale na boppam loolu waxatuma la ak yonent sëriñ bi dina ko jàngale ci kanam mu ne daal aaye yooyu xaw a lënt laa bëggoon sëriñ bi daal leeral ko mel ni Seydi Ahmad Tijaan da ne ko ban ci mu ne ko bu njëkk bi mooy inna fatahnaa laka fathan mubiinan ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ku ne xam na ne lii mu ngi xew ci sulxul xudaybiya sulxul xudaybiya mooy yàlla yónni na yonent ba moom maanaam yàlla bind na yonent ba moom quarante ans mu yónni ko yonent bi am treize ans mag xanaa am na cinquante trois ans gàddaay dem Madina su Munawwara amaat foofu six ans kon am na cinquante neuf ans euh, doon ñëw nag doon def ci tabarakallahu sulhu Hudaybiya maanaam doon bëgg a dugg ci euh, ñu tere ko ba coow la ba ñu dajee ci convention ne déwén lay ñëw déwén gi mu war a ñëw ci la amee soixante ans yu mat sëkk kon trois ans la fi dundat bi muy ñibbi nag boobu diggante cinquante neuf ans jëm soixante soixante ans ci la ko yàlla ne inna nun yàlla fatax naa la ko bés ni tey nag ubbil nañ la fatxan mu biinan ubbi gu wér te ku ne xam na ne alfatxul akbar bu ko tasawuf waxee rek mooy ku am dévoilement mystique ñu ne est-ce rafet na ci yonent bi at yooyu ak li mu fi dox yëpp ci mission bay waa jeexal yàlla naan kan maa ngi lay doog a jox fatxul akbar kooku laaj la tey am na pourtant ulama tasawuf ñu ko wax mais Cheikh na Tijaan neen rafetul di tudd lool ndax martaba siddiqiya rek mooy indi fatxul akbar te moom ngay passé pour dugg ci maqaamu nubuwati waaw jibril mi daan ñëw naakaar yàlla neen loolu ku ko tuddewul fatxul akbar looy tuddee li ci des ak kaamil bi ci xew yëpp mais fatxul akbar boobu sax jaaxalul borom xam-xam yi mais yàlla bi mu nekk naa innaa fatxanaa laka fatxan mubiinan daf cee teg ne li yaxfira laka allah te laam googu bu fekkee taxlil la mooy le pourquoi lu nekk dafay am le pourquoi laamu taxlil wala laamu taaqib wala laamu sayrurati bu mu ci doon rek bu dee moom lay firi mooy li yaxfira laka ngir walla bokk ngir yàlla baal la ci maa taqaddama li nga ma a def yépp ci euh, min ci ay bàkkaar maa ak li nga mujje bu fekkee à l'âge de soixante ans la yàlla soog a ñëw naan kat baal baal naa la say bakkaar xanaa loolu gàgg am na ci mag mu toll noonu ñu naan kat baal nañ te afdalul xalqi nag la ñuy ak bakkaar yi ñuy baale sax yan la maanaam maa taqaddama yi maa taaxara comme yàlla tudd na yàlla itam mooy asdaqul qaa'iliin euh, loolu gàgg gu rëy la waaye loolu borom xam-xam koy xam. mooy lan mooy fatxul akbar li des mooy lan mooy xufraanu bi maa taqaddama wa maa taaxara wa ma zanbu minhu lan mooy bàkkaar ci yonent bi te moom ñu ne maasum la euh, mënul mooy yàlla loolu mooy benn aaya bi xam naa nag lii bari na kuy ooteeg cëriñ amee sikkim bu rëy buñ la ko laajoon di nga gàtt mais na nga xam ne Seydi Ahmad Tiyaani mooy taajul aarifin te al arif mooy mooy mooy kilifa ak aalim beneen aaya bi borom xam-xam bi laaj ko ne ko wax ji yàlla wax ci alquran ne ko wa taxsha nnaas wallahu axaqu an taxshaahu te ku ne xam ne ne euh, yàlla dafa wax ne ragal leen ma yaa ayyuhan naasu taqu rabbakum ku ne xam ne ne ki gën a ragal yàlla ci li yàlla bind mooy yonent yàlla muhammad yàlla naan kaan wa taxsha nnaas yaa ngi nii di ragal nit ñi wallahu a an taxsaaw te yàlla nga waroon a gën a ragal te lii bamir ji moom moo ko moom taawul muxaataba direct la yàlla nga ko wax ci suurtu laxzab suurtu laxzab mooy yàlla dafa xëy ne yonent bi takkal sa mu muy Zeynabu binti Jaxsin Zeynabu binti Jaxsin yonent bi moo ko mayoon euh, mbay yàllam ku ñuy wax Zeyd ibnu Xaarisata sanata xamsin Euh, góor gi tabaarakallaahu fase ko muy góor gi Zayd ibnu Xaarib yàlla ne yonent bi may naa la ndaw si xam nga ba pare nekk ne nag yónnil Zayd ñii ko fase nga ne yonent bi nee na yàlla may na mu la muy kiimaan la du yëfi nit ku ko xooloon ci sa bopp rek di nga xam ne diisi na torop torop torop torop torop fekk rek jarbaat boo xam ne nii sa jarbaatu doomu sa sa mbokk mu xaw a sori doomam muy jarbaat ci yow nga ne woon nga ñëwoon rek bëggoon a wax yaay ji nekk damay càkk sa doom ji loolu dina diis trop waxtuma laa nag koo xam ne nii danga nga siiwal ne yaa jur ba ñëpp jàppe jàppe la ko muy Zayd ibn Muhammad mu bàyyi jigéen nga naan nga naan da koy denc naan yàllaa ma ko digal loolu diis na trop yàlla nag dal ko dal dal ci moom nekk jabar jii ma la jox ngay bañ na doo ko takk ngir ngir bëgg sàmm sa der ak bañ nit ñi wax la dara nit ñi mënal luñ la dara man maa la mënal dara demal fekk ji jabar ji demal jëri ji jabar ji wa tax sa naas yaa ngi ragal nit ñi pour ñu yëg la yàq sa der te wallaahu yàlla xaqu moo gënoon a yooyu an tax saahu pour nga ragal ko xam nga aaya bi boo dul ale yi firi dafay xaw a tarkala dis am na sax yeneen yuy ñëw ci kanam yii daal la boroom xam-xam bi ñëw ci Cheikh na Tijaan ne ko daal bi ñu bëggoon ci sa xam-xam bu leer bii te bari nga tontuñu moo tax ñi jàpp ne tariqa tijaaniya da dul tariqa xam-xam wala ñu jàpp ne sëriñ bi dafa amee wilaaya rek ak kurusam dañuy juum gis nga yii ku ko jàng di nga xam ne yi gàtloo mu fassiruuna yi gàtloo suruux yi la daan indil seen tiyaan yi mu mel ni tapla la yor rek di tontu euh, mu ne ko Seydi Ahmed Tidiane ne ko na nga xam li nga njëkk war a njëkk a xam mooy laaj bi nga njëkk laaj mooy ne yàlla nee na baal na yonent bi ay bàkkaaram yu njëkk yu mujje li nga njëkk a war a xam te jàpp ko yow jullit bi mooy bàkkaar moom bàkkaar li ñuy wax bàkkaar te mooy def luñ tere loolu moom dafa jomb ci ab yonent mënta ne maanaam ab yonent mënul def bàkkaar cent vingt quatre mille yëpp laa lay wax bàkkaar bi nga xam ne mooy def luñ tere ci sharia loolu ab yonent da koo mënul mënu ko maanaam yàlla bindul ci moom lu mën a def bàkkaar kon ndax yonent bu mënoon a def bàkkaar rek kon daanaka différence bi ñu am suñ digganteeg ñoom du amati mu tax yonent mënta def bàkkaar gis nga Yuusuf Seydina Yuusuf ndaw si bi mu wéeteeg moom nga xam kenn new fa nga xam ne bunte yi waroon jur yépp mu def musiba dajale ndax wéetaay am na kenn wéttali dara dara dara waaye moom mënu ko loolu maanaam daf dëgg la jàmbaar la waaye dafa munta mooy yàlla ndax ab yonent la kon moo tax laa tutasawwaru bi minhum li thubuti l ismati mooy yàlla moo xam lu tuuti la wala lu rëy parce que yàlla moo bindul ci organisme lu mën a mooy yàlla gannaaw yonent yépp mel noonu massa nag yonent yonent yi te mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi kon bu ko yàlla naan baal naa la say bàkkaar yi jëkk yi mujje bul foog ne yow mooy bàkkaar yi nga xam yow ba nga xam ne ay def lu baax ak euh, def euh, maanaam def lu xaram nga foog ne moom yooyu lañ koy baal déedéet waaye pour ma firil le ko nga ban koo xam dafa am benn qaida bu ñuy wax ne xasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ku ne xam ne ne nit ñu baax ñi dëgg dëgg dëgg li ñuy def ba mu tudd yiw bu dee nit yàlla yu mag a mag yi ñoo ko def loolu bàkkaar lay tudd ci ñoom euh, te loolu manes na koo xam ndax xale dina def loo xam ne nii xale xale bu majeuragul dina def ay jëf yoo xam ne wala mu wax ay jëf wax yoo xam ne nii maanaam kenn du ko yedd kenn du ko wax dara waaye bu bu demee ba nekk mag buñ ko ko fàttalee day mer ndax baa def loolu kon war nga xam ne dimension yi tolloowul yonent yi itam nag kawe boo xam ne ku dul moom rek mel na ni xale nga ci moom kon li ñeneen ñiy def loolu tudd yiw ci ñoom bu dee ci yonent niveau bi dafa war a kawe kawe ba moom bu defee loolu xale yi di def rek wax dëgg dañ koy yedd mu ngi mel ni reetaan xam nga dara nekk waaye ku fekkoon ab yonent mu daanu ci suuf ree bay tàpp di tàpp ki mu dendal di ko dóor di ree bay dóor dënn bi loolu bàkkaar lay doon xam nga lu tax yonent li mu gis yëpp dégg ko yëpp yàlla di ko wax ak moom direct mu gis tëkku yi yàllay xaar ay ay noonam kaar gis dig yi yàllay xaar ay soppeem moom mu gis loolu dégg ko mën a am jot gu toll ni di ree ba daanu ci suuf di tappaate loolu bàkkaar lay tudd ci moom ndax yonent bi moo ne law alimtum ma alimtu la daxiktum qalilan wala bakaytum kathiran wa ma talazaztum bin nisa wala tajaruna ila suada fa tabkuuna yonent bi nee na boo leen gisoon li ma gis mbaa ngeen déggoon li ma dégg dingeen ngeen ree lu néew tey jooy lu bari te doo leen bànneexooti ci jigéen d'ailleurs da ngeen génn sax ci digg àll yi di jël seen bopp yi di ko dóor ci montagne yi ngir ragal yàlla kon yonent boobu ku ko fekkaat mun yenn ci grand place bi di xàqataay euh, donte mën na bañ loolu du bàkkaar ci nit ñi waaye moom yonent niveau daf ko mayul loolu seen tiyaan na nag kon na nga xam ne bàkkaar yi yàllay wax yonent yi naan baal naa leen ko moo doonul bàkkaar yi aram ba nga naan lii yonent moom mënul def loolu waaye dafa am yoo xam ne seen dimension ñoom dafa kawe kawe ba war nañu ëppale seen bopp ñoom di tilimal seen bopp ci def yooyu donte dagan na ci ñu dul ñoom mais ñoom seen dimension dafa war a tax ñu dépasser yooyu léeg-léeg nit nit rek nit rek yi nga nekk doo def nàngam mu ne ah maa mag loolu nag te loolu mu naan maa ko mag araamul waaye mu dangay dégg mu ne maam ak loolu loolu la ñuy tudde bàkkaar ci xàqu yonent mu ne loolu nag ñaari parti la daf ci am parti boo xam ne nii daggan na yonent yi ña loolu ñu tudde bàkkaar ci ñoom te mooy def loo xam ne li olof naan diine dina la may loo xam ne sa ngor du la ko may benn atte rek lañ ciy jël yàlla wax na ci alquran wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa qad ataytum ihdahunna qintaran ba aaya ba jeex yàlla nee na araam na ci góor mu takk lu ëpp ñeenti jabar loolu ñëpp xam nañ ñeenti jabar yoo xam ne góor lañu waaye yàlla nee na boo takkee ñeenti jabar dem ba doyal ci ñeent ñooñu nga gis keneen koo xam ne kaar rafet na lool nga sopp ko bëgg ko yëg ci moom loo xam ne xëy na yëgatoo ko ci ñi nga nekk bu fekkee da bëgg a remplacer kële te mënoo def juróomeel l'islam nee na kenn ki mën nga ko yewwi rek defal ko teraanga may ko ay bagage ak yooyu ne ko daal mën nga dem bu kooku demee ba tënjam jeex maanaam iddam jeex nga takk ku rafet yi nga xam ne moom nga bëgg a tey loolu dagan na wa dépassé na foofu sax mooy ñent ñëpp buñ demee ba nga doyal ci ñoom ma ñoom ñëpp mën nga leen yeewi ba seen idée jeex nga dem takkaat yeneen ñent yu bees loolu lañ wax ni diine may na la ko waaye ngor ana ngor koo sëyal ba mu jox la ndawam yëpp ngeen am ay doom xamante miinante ba yàlla wax ne wa axas na minkum misaaqan galizan ngeen am kóllëre gu foor gis ku bees tax nga bëgg yeewi ñooñu loolu wax dëgg yàlla ku ko defoon ci dëkk bi yow yaay raw sax ku def bakka hmm? pourtant loolu dagan na de dagan na mais gis na ni mu ñaawee ci gis-gis loolu nag moo dal yonent yi yonent yi dañ leen di tere loo xam ne du bàkkaar mais seen ngor ak seen personnalité moo leen ko warul a may yooyu ñu leen tere nag ñaari façon la daf ci am boo xam ne daggan na masalan tabarakallahu nelaw ba bay xa xandoor neex na torop dagan na itam mais yonent bu ko defee bàkkaar lay tudde ci moom loolu ñooñu kenn waxu leen ñu bàyyi ko maanaam loo xam ne dagan na yonent kenn terew ko mu bàyyi ko ci benn façon loolu bu ko defee kenn du ko yedd mais daf ci am beneen euh, côté boo xam ne nii Euh, donte dagan na itam mais beneen côté dañ ko dul rafetlu dañ koy dañ koy tere mais tere bi duy caaginu yàlla moo leen wax ne bu leen ko def waaye rafetul ci benn côté euh, ñoom nag bu ñu fàttee côté bii nga xam ne mooy tere bi dem ci phase bi dagan rek euh, ba bàyyi bii sàggan ci bële yàlla da ni di yedd yeddaange googu nag loolu la ñuy tudde bàkkaar ci ñoom ndax ku yàlla yedd rek maanaam boo meloon na nga war a mel dëgg-dëgg doo dégg yedd googu looloo tax kon na nga xam ne yonent ci ñaar yooyu rek lay maanaam loo xam ne nii dafa dagan waaye bàyyi woon ko moo gën a rafet ab yonent bu ko defee loolu ñoom dañ koy jàppe bàkkaar loolu la yàlla wax ni da koy toppoo ay yonent dañu wax ne yàlla lu ndaw da ciy topp yonent yonent yàlla yuusuf téere yi ñu ngi wax ne li ko dal yëpp moo ko yóbbee boppam bi mu nekkee xale dafa rafet lool mësa tiim nag benn seetu di xool boppam xool boppam ba yàgg yëngal bopp bi ngir naw boppam ne ah man de xam naa ne bu ma nekkoon jàmm bañ may jaay kenn du am sama njëg dinaa cher torop yàlla nekk comme noonu la baax na xam nga loolu da ko wax rek te boobu sax xale la loolu yàlla nattoo ko ñu def ko jàmmoom ba pare wa sharahu bi samanin baxsin darahima mahduda wa kaanu fihi min azahidin yàlla nattoo ko ay bokkam jël ko yóbbu ko ci ab teen ay nit jël ko jaay jam jam ca marché ba jaay ko mais jaayu wanteer li muy rafet rafet xooluñu ko dañ ko wanteer yàlla ne darahima mahduda ay dërëm yu tuuti ay juróom-ñetti dërëm ak juróom-ñeent lañ ko bazardee wa kaanu fiihi min azahidin attan koo wan gannaaw nag xanaa moom yàlla yar na ko njaam googu ci la nekk presque ba am quarante ans yàlla di ko soog a def yonent xam nga loolu mu waxoon te mu nekk xale bu ndaw naan man bu ma doon jaam dinaa seer xam nga loolu wax dëgg yàlla nit sax dina koy wax naan a ah, tey bu ma nekkoon nangam nangam loolu nit dina ko wax mu jikko mais bu dee ab yonent dañ ko ciy topp looloo tax ñoom lii ngay tudde bàkkaar ci ñoom du caaginu bàkkaar buñ tere lañ def waaye seen dimension kawe na kawe boo xam ne bu ñu defee yuñ maanaam yu yoo xam ne dépassé na seen niveau yàlla da leen koy jàppe boobaa nag euh, mooy qaida biñ ñu biñ doon wax xasanatul abraar sayiatul muqarrabin mu ne wa amma ma zukira min al gaflati fa laysa hiya al gaflatu al maahudatu fi xaqi al aamati wa hiya al iraadu an mutaala'ati xadrati al ilahiya walakin al gaflatu haahuna fi xaqihim hiya an nisyaan wan nisyaan gayru mustaxilin fi xaqihim li annahu jibillatun bashariya faqad qaala sallallahu alayhi wa sallam innama ana basharun ansa kama tansawna fa ida nasitu fa zakkiruni wa kama fi qadiyati xadiisi zil yadayni xaysu sallama min rakcatayni fi rubaaciyati sallallahu alayhi wa sallam fa qaala lahu zul yadayni أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لم نقصر ولم أنس فقال له بلى نسيت فلما قال له ذلك سأل صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر قال له أحق ما يقول ذو اليدين قال له نعم فرجع للصلاة وأكملها فظهر لك من الخير أن النسيان fa zahara laka min alxabari anna nisyan yatra'u ala alanbiya bi tasarrufati alaxkaami alsharciyati wa hiya alsalaatu wa hiya acdamu ma yutlabu sharca wa nasiya sallallahu alayhi wa sallam bacda ajzaiha fa huwa dalil ala anna nisyan fi tasarrufi alaxkaami alsharciyati gayru mustaxilin fi xaqihim bi shaahidi alxadiis ولتعلم أن النسيان المذكور هنا هو غير الملحوظ في قوله فاليوم ننساكم كما نسوا لقاء يومكم هذا فإن ذلك هو تعمد الترك للعمل بأمر الله مع العلم به وعدم نسيانه ولكن النسيان هاهنا هو الترك فقط والنسيان المعبر عنه في حق الأنبياء ينقسم قسمين لا ثالث لهما القسم الأول هو الطارئ بالجبلة البشرية wa huwa nisyaanu alxukmi fi am fi lamri wa adami wuquucihi fi baali alshaxsi hada saaxibuhu maczuurun laa yuwaaxazu bihi sharcan والقسم الثاني من النسيان أن يطلع على أكابر الصديقين والأنبياء في حضرة ذي الجلال سبحانه وتعالى من التجليات والواردات مما يذهل العقل وينسيه الأحكام التي kaana yaclamuha aw bacduha bisababi satwati tariati min altajalli aw ilwaari hada aydan ka nisyan aljibilli saaxibu maczur wa hadihi hiya alwujuh nisyan fi xaq alambiya alayhi salatu wassalaam nee na nag loolu mu wax ne xasanaatul abraar sayyiaatul muqarrabiin yonent yi nga xam ne yàlla daf leen jox ay cër ba yu bari dafay ëppanteeg seen cër ci yàlla ba ñoom bu ñu sàgganee ba dugg ci loolu mu jur yàlla yedd leen loolu di bàkkaar ci ñoom nee na buñ nga waxee nag sàggan jublu ci sàggan gi nga xam ne moom la public bi di amee maanaam mbirul yonent buñ nee yonent sàggan na rek sàggan moom bokkul ak ñun suñu bës yonent yi buñ leen wax sàggan ba bàyyi lu ñu waroon a def moo di ñoom seen ruux li fa yàllay sotti ci ay leer ci xadra yàlla ak li mu leen bàyyiloo xel day baree baree bari ba mel ni ci waxin ku ñu yenoon loo àttanul xam nga ku ñu yen nag loo àttanul nga nekk ci difficulté yooyu buñ nee la yow kañal kañala sa date naissance man nga kaa bañ a xamati nag du dëgg kon yonent yi yooyu ñuy def muy fàtte yooyu du caaginu fàtte tayef la mais yenn bu rëy la waaye ab fàtte boo xam ne daal euh, euh, maanaam buy jur ci ñoom bàkkaar mooy façon boobu waaye du caaginu bàkkaar boo xam ne dañ koy def comme yow li ñuy tudde njaaloo wala fen wala ñu mel noonu déedéet ñoom yenn bu diis bi ñuy amee mooy tax dañuy dem a dem ba yu baree bari ñu fàtte ko te loolu fàtte sax bu dul dara yëfi nit la shaa'ir bi dafa ne wa ma al insaanu illa li nafsihi wala al qalbu illa annahu yataqallabu jàngale nañ ko ci gannaaw nee nañu nit yàlla mu ngi ko bindee ci fàtte ñu ngi ko jële ci suñu maam aadama te loolu ki gën a baax ci mindeef yi muy yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla wone na bés ne moom nit la dafay fàtte am na bés muy jiite julli euh, julli ñeenti rakka euh, lu mel ni euh, tisbaar wala takkusaan wala geewe ñeenti rakka la waroon julli mu am ñaari rakka toog di taaya ne asalaamaaleykum ah saxaaba yi comme ñoom moo leen jàngal julli kenn amul droit kenn sañul nekk lii lan ba yàgg benn waay bu ñuy wax zul yadayni moo jóg taxaw ne ko aqasarta salaata am nasiita waaye yonent bi da ngaa fàtte wala da ngaa wàññi yonent bi nekk fa wàññiwuma julli parce que ku tukki mooy wàññi julli julli ñeent nga def ko ñaar ku tukki moo koy def te man tukki ma maa ngi nii sama jàkk mu ne ko kon da ngaa fàtte mu ne déedéet fàttewu ma ndax julli gi mat na mu ne ko ah benn am na ci nag ndax julli gi moom ñaari ràkk nga julli loolu yone ni xam naa njaay la sant moom ndax moom moo am fit boobu ci bi gestu mais eh, Aboubacar ak Omar ñoom ñoo sëf ak moom xëy na zul yadayni sori woon na sax nee leen af axaqun ma qaala zul yadayni eh, ndax zul yadayni li mu wax nii ne ñaari rakka laa julli sëlmal est-ce wax na dëgg ñoo ñu nekk ax ah, kay ni mu ni mu waxee noonu la demee ñaari rakk da nga jot a am yonent bi ne kon jub ñu mottali julli maanaam loolu li ci Cheikh Tidiane jublu mooy pour wan la ne kon yonent bi da fàtte parce que nit la kon ab yonent yàlla musalu ko ci fàtte lu dul ahkaam maanaam loo xam ne yàlla du ko digal nag yàlla moom lim ko digal pour mu wax que nit ñi même bu ko naroon a fàtte sax yàlla dina yabal benn malaaka bu kanappale rappelé euh, pour mu nekkat ak waaye gannaaw yonent yàlla muhammad bi gën ci yonent yépp moom moo fàtte jaamu yàlla gi gën a rëy te muy julli kon da xam ne Euh, fàtte dalilun ala anna nisyan fi tasarrufi al ahkam shar'iyya ghayru mustahalin fi fi haqqihim bi shahid al hadith nag fàtte gi nga xam ne moom la yàllay tëkku yéefar yi naan fal yawma nansaakum kama nasu liqaa yawmikum hada yéen yéefar yi dinaa leen fàtte ci safara comme ni ngeen fàtte woon sama bés bii ne doo leen dekki nee na boobu nag mooy fàtte goo xam ne boroom a ko tey loolu la olof di tudde fàtte fàttali xam nga kuy dof doflu ñu naan laan yàlla am na nga naan amul xam nga danga nga rek tay julli nga naan noo julliw ma di fàtte fàttelu julli yàlla nee na noonu ngay dof dofloo di fàtte fàttelu jaamu yàlla boo deewee itam dama naan leen dugga leen safara foofu dinaa leen fa fàtte fàtteli kum comme ni ngeen ma doon fàtte fàtteloo ci àdduna moo tax ñuy wax ne lu waay def boppam léeg-léeg nga topp ci nit kaay mu naan non temps yi aw ma temps kaay jaamu yàlla mu naan aw ma di dof doflu yàlla nee na bis bu duggee safara noonu laa ko fay fàttee noonu laa ko fay fàtte comme ni mu doon fàtte fàttelu jaamu bi euh, yàlla ñu yàlla ci loolu mu ne loolu nag bu dee cadre boobu ab yonent moom du mel noonu parce que loolu mooy tey bañ a gis lu la waroon defoo ko loolu ab yonent mënu ko ndax loolu lañ tudde woon bàkkaar kon fàtte gi ñuy wax ci xaqu yonent yi ne dinañ dinañ leen ci bindal bàkkaar nga xam ne loolu turu bàkkaar lañ koy mën a jox waaye melu ni suñ jos ñaari xaaj rek la euh, benn bi moo di fàtte boo xam ne fàttek nit la yonent bi sallallahu wax ne rufi an ummati nisyan wa ma ukrihu alayhi euh, yonent bi nee na Euh, sama xeet yàlla baal na leen lu ñu fàtte nit moom bu defee dara nga ne ko mais yow lu tax nga def lii mu ne eh dama ko fàtte woon lislaam am na amatul loo ci wax ndax fàtte moom moo mag borom kii nelaw itam lu tax julli woo nga ne dama doon nelaw ko kenn mënu ci dara ndax nelaw moo man borom ak nit ki liñ ko forcé ku te yor yet toog tiim la ne la di def lii par force loolu boo ko defee pare bàkkaar du la ci fekk ndax ka ka yoroon yat bi mooy am ñaari bàkkaar parce que bàkkaaru dóor yi mu la doon dóor ak bàkkaaru li nga def yow moom lañ koy bindal euh, kon ab yonent bu fekkee dafa fàtte naturellement nga xam ne ubli la euh, kooku effectivement bu dee ci ñun dara duñ ci fekke mais bu dee ci yonent comme fàtte na ba def ko loolu bàkkaar lay doon ci moom xoolal gis nga dimension ni mu wutee mais bàkkaar boobu yàlla mën na koo baal beneen bu ñaareel bi mooy beneen fàtte bi nga xam ne nag nitu yàlla yu mag a mag yi lay euh, lay dal mooy li Serigne Cheikh di wax ne crise de mémoire nee na astaab yi gën a rëy lay dal ak euh, borom nit yàlla yu mag yi boobu nag lan moo koy jur mooy li olof di wax naan lu fees tuuru mooy yàlla di def ci ruux leer di sol ci ruux leer di sol ci ruux leer ci ay tëjalliyaat ak ay waaridaat ba xelum borom xaw a dem ba mu commencé fàtte sax yi ko gënoon a jege te nit yàlla dina ci àgg dana dem ba doomam bu taxawee ci kanamam sax mu naan yow la kat kooku nag yeneen ahkaam yi nga xam ne du ko def ko kenn du ko ci toppe mooy li ñu mënul firi ba tey da gis ci tasawuf kuy wax ne di julli du woor nga naan waaw kii yéefar la fekk du yéefar daf fi nekkatul ki fi nekkatul nag kooku kenn du mën a jël benn atte di ko teg ci kawam ndax nekkatu fi loolu nga xam ne nag mooy faral di dal euh, siddiquuna muy nit yàlla yu mag yi ak léeg-léeg yenn yonent yi sax bu doon tey dañ koy firee xaal ki ne ci xaal yooyu la mu bàyyi kenn du ko mën a tudde bàkkaar parce que dafa seey ci yàlla seeyin goo xam ne gisatul kenn ku dul yàlla xam nga ki nga xam ne nag gisatul ku dul yàlla nekkul ci lu dul yàlla nga yaakaar julli jot na mu ne la julli pour lan la nga ne euh, yàlla lañ koy jaam mu ne man ci laa ne kooku dimension bi mu lay wax bokkul ak yow bi ngay àttee euh, kon ñaareel boobu nga xam ne mooy fàtteeg euh, tëjalliyaat yu rëy ngir rëyaayu leer gi ñu naan ci seen ruux kooku itam moo fàtte gëlee nga xam ne bu naturel la mu muy nit ku fàtte comme ni yonent bi fàtte julli bi ñoo bokk atte ñoom itam kenn du leen ko bindal mais bu dee ci xàqu yonent ñoom it dañ koy jàppe ba tey bàkkaar euh, mu ne qultu li cheikh wa hal yatra yatrau nisyan ala xaqi rusuli qabla tabligi ma umiru bihi kama taraa bada tabliig qaala la walaw nasiya cheyan mima umira bi tabligi lil xalqi la baasa allahu ilayhim malaka wa zakkaraw bihi liyutimma diina alladi araadahu subhanahu wa taala li annahu huwa alxaafidu lahu xatta yakmula ma araadahu min sharcihi qaala taala la tuxarrik bihi lisaanaka li taajala bih inna alayna jamcahu wa qur'aana li annahu kaana sallallahu alayhi wa sallam yacjalu bi qiraati ma yasmacuun xawfan min annisyaan summa qaala radiyallahu anhu wa ida waqaat almucaatabatu ala nisyaani altaari'i bisababi aljibilla aw bisababi alwaaridaati li culuwi maqaamihim wala talabi tanzihihim maa yudannisuhum fa hada wajhu algaflati an wajhi talabi tarki mimma tamaxada bihi xukmu alibaaxa mu ne ñu laaj Cheikh Ahmed Tidiane yi ne waaw comme comme yonent yi même même fàtte yi ñuy fàtte nga am ne c'est naturel nga xam ne kenn du ko bindal kenn duñu ko bindal bàkkaar mais bu dee ci ñoom bàkkaar lay doon ci ñoom ndax olof sax day faral di wax léeg-léeg boo nekk nangam dama ko fàtte mu ne boo ko fatoon doo ko fàtte ñoom yonent yi dafa mel ni yàlla loolu la leen wax bu ñu fàttee dara ci lu jëm ci xàqu yàlla day mel ni yàlla da leen ciy topp ne leen boo ko fatoon doo leen ko fàtte moo tax bàkkaar lay doon ci ñoom beneen bu ñaareel bi mooy tëjalliyaat yu rëy yi nga xam ne mooy dugg ci seen ruux ba ñu gëlëm ba tax ñu bàyyi yi ñu li leen waroon yàlla day mel ni daleen leen wax ne dëgg la may yi rëy na waaye lële boo ko fatoon itam doo ko fàtte kon ñoom du ñu mucc benn côté ñu laaj nag cheikh nay waaw yonent yooyu fàtte yu rëy yooyu leen mën a dal muy crise de mémoire ñuy def oubli ndax leer yu bari est-ce que dina dal yonent bi ab avant muy joxe message am wala bu joxe message am ba pare la koy dal mu ne déedéet buy joxe message am loolu du ko dal xam nga ko yàlla ne demal waxal ma nit ñi lii la la yàlla wax nga wax ko nga fàtte sa message jàll mu ne déedéet kon yonent avant muy jàttale message am te yonent yëpp ñoo ko benn message muy tawxidullah ak ibadatu euh, yeneen yonent du fàtte loolu lépp lu ko yàlla sant pour mu wax ko nit ñi moom munu koo fàtte cheikh ne même sax bu fekkoon comme yëfi nit da ko jàppoon ba mu waroon ko mën a fàtte yàlla dina envoyé waat malaaka bi pour mu fàttali ko nekk lii da ko war a wax ndax loolu moo tudd tax mu tudd messager le prophète Muhammad gis nga wàcc nañ ci moom alquran vingt trois ans vingt trois ans boobu début bi da daan profito bu ko jibril waxee benn aaya mu ciy topp ngir tari ndax ki jàng alquran dañ koy jox bindam mu dem toog fële yor téeram bala aluwaam di ko baamu di ko baamu ba miin ko wala ba mokkal ko tëj téeram bu ko jàngee ba pare sooga dem rëst bi yonent bi nag noonu la daan def début bu jibril ñëwee rek wax mu bëgg ci jaaraat ji wax yàlla ne ko déet laa tuharrik bii lisaanaka bul yëngalati sa làmmiñ li taajala bii ngir nga bëgg a gaawantu pour ne da nga jàng yow bokkoo ci ñuy jàng déglul rek dañ lay enregistrer bi soo paree yow da nga koy tegaat rek jàllale ko inna naa war na ma man yàlla jam'ahu ma dajale ko ci sa xol ba nga mokkal ko wa qur'aanahu may naa la itam yow nga nga jàng ko bu ko defee boo ko tariwaatee rek dafay jaar yoon defe naa ñiy jàng alkaamil bi yëpp bu ñu amoon lii lu ñu sonn ji mooy da déglu sëriñ bi wax rek nga dem toog ba mu neex la ñëwaat tari daal di yow fekk nga mokkal lépp waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam la yàlla may loolu boobu li mu doon daw mooy fàtte googu yàlla nag garantil ko ko ne yow doo fàtte maanaam loolu dafa bëgg jàngale ne kon ab yeneen message am du ko mën a fàtte même bu ko fàtte woon malaaka dina ñëw fàttalik ko ñu ne cheikh waaw ñoom nan lañuy ñuy ba pare yàlla di leen yeddal xanaa kay ci fàtte deful bàkkaar mu ne waaw yàlla dafa bëgg a leen ak nit ñi comme nit ñi ku ci fàtte doo am bakkaar waaye yonent comme niroowul ak nit ñi yonent du bokkul ak nit ñi kon faw yàlla am lu mu diversifier diggante yonent yi ak nit ñi moo tax ñoom seen fàtte ñoom noo xam ci ñaari façon yii ma la waxoon muy fàttek nite wala fàttek may euh, leer bu bari bu mu ci mën a doon faw yàlla yedd leen yedd goo xam ne yow ci ngay xame ni ñii kat du ñu say moroom ndax ñu ngi leen di yedd ci loo am ne bu doon yow bootul dara du la ci fekk nga xamee ci ñoom kon seen supériorité ci ci euh, euh, yow mais itam ñoom it ñu xamee ci ne bokku ñoom nit ñi te maam Cheikh Al Khalifa radiyallahu anhu daan wax ne borom caq dafa war a mot woy wottu borom baatu nen koo am ne dafa am caq bu cher boo ànd ak borom baatu nen dana fexe fexe fexe ba jël sa caqa boobu nax laa nax a nax ba jël ko looloo tax ñoom yonent yi seen fàtte yàlla du leen ko baal ndax dañuy bañ ñoom ñu niroog nit ñi te noonu euh, Cheikh Atiyan nee na benn misaal rek laa la ciy jox Seydunaa Nuux xam nga Nuux yàlla daf ne ko woon dinaa la euh, saw nit ñi ma la yónni nga nekk ñoom neuf siècles et di woote faalewu ñu la gëmuñu la dama leen alakan mu ne yàlla boo leen alagee ma jël mu ne ko dinaa alag ñëpp suuf sa famille noox xam na ne famem mooy ñi ko gëm waaye dafa fàtte yàlla dogal mu defarloo ko gaal mu defar gaal bi dugg ci mook ñi ko gëm ñooñee famem de benn doom bu ñu kan ànne moom duggul man gëw ma gëw sa diine dugguma nuux nekk fa di wax di wax di wax ba yàlla dogal xale bi waxaala na al mawju fa kaana min al mugraqin noonu mu daan baabe xale bi ñu jekki-jekki benn vague ndox moo jaar seen diggante xale ba lab yonte yàlla nuux nag nekk ci gaal gi désespéré di jooy ndax doomam jooju dee mu metti ko lool mu ñàkk nag lu muy def ne yàlla vraiment man li waxoo ma woon lii waxoo woon lii yaa ne ma woon dinaa mucc maag samay doom yépp yëpp yëpp mais booy bi dee na booy bi dee na te man booy bi maa ko jur yàlla leen nox bul ma waxati lii de anna su'ala mubaaxun lahu fi talabi taxqiqi ma ashkala alayhi mimma dukira fil aaya وهذه القضية يتناول وجه طلب ترك مما عرف شراعي الأنبياء من طلب ترك البحث عن سر الاستبداد الحق به قال سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل فلما غفل عن هذا الوجه يتناول القضية nuux liñ koy yedde mooy laaj ji mu laaj yàlla ne ko waa ji nga rey lii te muy sama doom te yow yaa ma digoon ne ma sa doom tabaarakallah maanaam sa njaboot dinañ mucc xam nga noox li mu laaj li li olof di wax day taxaw ne laaj daa aay xam nga laaj bu doon nit kese kese kese laaj aayul waaye noox mii laaj du n'importe kii moom waroon na xam d'abord yi mu yi waroon a tax mu warul laaj dafa bari benn mooy yàlla kenn waru koo laaj la lay def laa yusalu amma yafal yàlla kenn waru ko laaj pourquoi ndax lépp lu mu def rek moom mooy xakimul alim xakim mooy koo xam ne lépp lu mu def loolu la waaw koo xam ne xam nga ne lu mu def noonu la ba pare nga koy laajaat loolu xafla euh, la ci nuux bu ñaareel bi moo di yàlla da ko ne woon euh, di nga mucc ak saw xeet moom mu jël xale bi boole ko ci aw aw xeetam jaare ko ci deret te wax dëgg yàlla deret taxul nit bokk ak nit pas-pas mooy boole nit ak nit képp koo bokkal ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wala wa ashadu anna nuux rasulullah yàgg ko ay mbokk yu raw ndey ak bàyyi ngeen mbokk waaye kooku bu ko weddee boo leen bokkoon ndey ak bàyyi bokk leen dara nuux xam gi mu xam loolu ba pare teewul muy ñëw di laajar loolu ak ce que du bàkkaar ci moom kon moom li ko tax a laaj mooy baat bi olof di wax naan laaj daa aay mais itam li tax mu aay mooy moom dimension warul woon di laaj ndax yii ma wax léegi mu ne kon càggante googu ko topp nag ci cadre boobu nga xam ne waroon na xam ne yàlla kenn bu ko laaj li muy def euh, ak moo tax yàlla tontu ko ci saasi ne ko fala tasalanni ma laysa laka bihi ilm inni aizuka an takuna min al jahilin te loolu moo ko confirmé yàlla ne ko désormais bul ma laajati laaj yu mel nii te maa ngi lay avertir pour nga bañ a bokk ci les ignorants ndax ñi xamul dara ñoo ma war a laaj waaye mag mu toll ni yow ak ni nga yàggeek man ma di la jàngal sama bopp di la jàngal sama bopp ba nga ba foogoon ne mbokkal nga xale bii dee bërki démb ba tax nga frustré wu ba naan noo innahu min ahli bu ma ko laajati de ndeke noonu kon liñ koy yedde foofu mooy laaj bi gannaaw bi mu xamee ne yàlla kenn waru koo laaj li muy def ndax lépp lu mu def jaadu na kon dama la bëgg a wax ne yonent xoolal ñun yii yi ñu bàyyiwul xel moom bàkkaar lay tudd ci moom ñun tey ku fi laajoon dara ñu la tontoo da naan laaj daa ay noox nag moom laajoon dafa ay moom euh, te dara jurul ko lu dul affection euh, paternelle bi mu amoon ci doomam nee na Seydi Ahmed Tijaani moo bari xam-xam xam nga ne lii ñi koy tontu bariwul de wala amul sax nee na wa ka qadiyati Moussa alayhi salaam fi qatli nafsi fa inna alwajha al ibaha fiha annaha kafiratun asliya la ahda laha wala dimma tutraku li ajliha wa zalamat bima faalat bil israili eh, alladi istaxaasa bihi wa limaada alayhi min nusrati almazlum ida kaana yaqdiru alayhi walam yakku fakku walam yakun fakku israil minhu illa bi darba fa wakazahu gayra qasidin li qatlihi fa qada alayhi wa kullu hadihi alwujuh musarraha bilibaha wa qatluhu kana xataan gayra qasidin lah waju talabi tarki fiha anna arwaha alkuffari wa in kafaru lam tubax iraqatu jimaihim illa bil idni alilahi wal idnu alilahi la yakunu illa bada tabligi dawati alrisala wa ibanatihim an amrillahi wa talazzudi bada alinzari wattalawum fa xiina idin yazanu allah fi qatlihim wa qitalihim lirrusuli falamma lam yakun shay'un min hada alladi yarfaca talab yurfau talabu tarki wa in kasurat fihi wujuhu libahati kana alitaabu waaqian min hada albab wa lamma tafattana musa alayhi salaam li hada qala hada min amali shaytan innahu aduwun mudillun mubin ba tey yi yàlla yedde yonent yi nga xam ne bàkkaar lay tudd ci ñoom mais fàtte lay tudd ci ñun moo di xoolal yonent yàlla Muusa weesu na ci pare na ci Nuux yonent yàlla Muusa eh, dafa xëy di doxantu ci dëkk bi dajeeg benn xibti yi mooy koo xam ne égyptien la muy xeex ak benn israeli yi nga xam ne mbokk la ci yonent yàlla Muusa ci wàllu deret mu ne yéen loo leen jote xale bi nga xam ne mbokkam la nekk mu ngi nii jël sayu matt wu rëy wu toll nii ba pare ne dama koy yen ba pare topp ci sama gannaaw di dóor nanguma lool kooku nekk kii suñu jaam la daf ko war a yen yonte yàlla Moussa ne ko yow lu tax nga koy yen mu ne ko waaw parce que ay jaam lañ te ñi mu naan ay jaam lañ famem lañ muy bani Israil yonte yàlla Moussa ne ko yenuwul dara mu ne ko nag da koy yenu par force ñu nekk foofu di werante yonte yàlla Moussa mbéj ko mbéj boobu il n'a que ans waaye doole ji mu amoon tax na bi mu mbéjee waaj yi waaj dafa daanu suuf sedd guy yonent yàlla Moussa yëngal yëngal ndeke waaj dee na xam nga roi des arènes ku mu mbéj xam nga danaan damay fore mais da ngay dee dangay ngay dee ndax lim la ëpp moo tax te yonent yàlla Moussa moo ëpp fuuf roi des arènes ku watu nubu rek kenn xamul nu mu toll ba mu ko mbéjee nag waaj dee mu naan comment mais lii jëfu seetaane la ah. man jubluwuma ci woon rey ka yàlla ne ah yaa ko rey de lan moo tax mu tudd bàkkaar ci yonent yàlla Muusa boobu nekkagul prophète sax waaye quwwatu nubuwa ak martaba siddiqiya ca la taxawoon seen tiyaan yi ne certes kim rey yéefar la am nga yéefar la te yéefar ku gëmul yàlla kooku defe naa yonent boo gis sax muy muy def combat ñan lay combat wal mooy yéefar yooyu waaye Moussa kon rey gi mu rey waajooju kooku nar naturellement de maanaam deretam dafay nen parce gëmul yàlla euh, benn mooy bu njëkk bi kon war nañ war nañ justifier rey gi ngir loolu mais beneen bu ñaareel bi mooy dóor gi mu doon dóor mbokkum yonent yàlla Moussa te nit nag boo bokkee ak moom buñ koy néewal doole da ko war a jëlal paar kon ñaar yooyu tax na yonent yàlla Moussa li mu def jaadu na te mooy nusratul mazlum da doon dimbali kuñ tooñ bi ci des mooy jublu ci woon ray daf ko mbéj rek comme ni mu dóore kële kooku dee ci ay loxoom kon boo jëlee ñetti cadre yi yëpp mooy ki mu rey yéefar la dañ ko waroon rey bi ci mooy jublu ci woon rey kon xatlul xata la ñetteel bi mooy nusratul mazlum ñett yi boo ko boolee yiw la waroon a am moom yiw yiw la ci war a am mais lan moo tax mu tudd bàkkaar ci yonent yàlla Muusa moo di yàlla digalul rek ne yéefar yi foo dajeek ñoom yéefar boo dajeel rek foo yore jaasi na dal kon kon àdduna bi tukki ndax fi ñi fi gëmul yàlla ñoo ëpp ñoo ëpp ñi gëm yàlla seen tiyaan ne yàlla dafa dogal ci programme am ne kenn amul droit rey yéefar yéefar lu dul ab yonent yàlla yónni ko pare bu yàlla yónnee yonent bi léegi nag yonent boobu oo nit ñi ñeka weddi la ñuy mën a tudde yéefar te jamono jooju yàlla yónnee bul yonent parce que Moussa moom la yàlla war a yónni te trente ans la am kon dina ko defaat desewaat dix ans pour mu am quarante ñu soog koo yónni kon moom kenn yónneegu ko comme kenn yónneegu ko yéefar mën nañu koo xam ndax kenn jëmagul kenn weddiwul loolu mooy bu njëkk bi ñaareel bi moo di yàlla faw mu yónni yonent mu oote ba pare bañ weddi ko ñi ko wot weddi ci la ñuy soog a am justification pour ñu war leen a rey kon xibti bi Moussa rey yeggagul foofu mais beneen bu ñetteel bi c'est plus essence c'est plus l'essence euh, essentiel te mooy kenn amul droit xeex ak yéefar te yàlla digalu la yonent bi gis nga yàlla yónni na ko treize ans naan kaan fasbir rek muñal muñal muñal kon xëyul rek woote ji jihaad mais ba mu demee ba dem Madinatu Munawwara ci la yàlla soog a digle ne na lillazina yuqaataluuna fi sabilillahi bi annahum zulimu inna allaha ala nasrihim la qadir kon moom yonent yàlla Musaa kenn digalagu ko xare faf kenn yónneegu ko yàlla yónneegul benn yonent boo xam ne dina la dina oote bañ man koo weddi ñett yi itam tax na kon rey gi mu rey waa ji en réalité kon tooñ la xam nga tooñ la ndax amul lenn lu justifié rey gi gis nga kon ab yonent rey na yon euh, na rey na yéefar ba pare bu tudd bàkkaar ci ko loolu lii moo ko jur euh, kon nga gis ne xasanaatul abraar sayyiaatul muqarrabiin moo tax moom yonent yàlla musaa bi mu ko reyee rek li mu njëkk yëgaat li ko maqaamam jox mooy haada min amali sheytaan i sheytaane nax na ma innahu aduwun mudillun mubin kon bokkul ak ñi nga xam ne dañuy def dara ba pare di ko bàkkoo naan ma maa rey waa ji déedéet moom gis nga dafa delluwaat ci yàlla jéggalu yàlla ne rabbi faghfir lii yàlla fa ghafara lahu yàlla baal ko bi mu dellusee ci yàlla rek yàlla baal ko waaye nekk fa di ko bàkkoo naan rey naa waa ji kon nga gis ne dimension yonent yi xoolal ni mu sore Mawlana Seydi Ahmed Tidiane yi nee na xoolal euh, lii ci ngay xame ne yonent bi sallallahu alayhi wa moom itam euh, cëram kawe googu mu kawe moo tax yàlla tuddee ko ne ko inna fatahnaa laka fathan mubiinan liyaghfira laka allahu ma taqaddama min dhanbi ma ta'akhkhara yow yi ngay tuddee ay bàkkaar euh, ba foog ne yow moom ngay def lu mel ni euh, wax lu dul dëgg tas mbokk wala njaaloo wala yu mel noonu tuddee ko bàkkaar nga foog ne loolu mooy doon bàkkaar ci yonent bi yi yàlla jéggal yonent bi déedéet dafa doon yoo xam ne nii ñoom yonent yi rek ñoo mën a xam dimension bàkkaar yooyu ak fa mu àgg ñu ñaan yàlla dars bi fii lañ koy daane la euh, ci déggin yu yaatu yu sëriñ bi jàngale ci maqaamu risaala ak nubuwa ak siddiqiyatu euh, yàlla na yàlla fayal ñu ko bi max bi fadli wa juudi yi hada wa tawfiq min allah aleykum wa